li mooy gën c'est vrai euh, beneen rappeur fekkee sax mun naa ne rappeur wala activiste wala mm-hmm. sax euh, sympathisant Ousmane Sonko mm-hmm. nit dof aussi mm-hmm. par rapport ak euh, li nga xam ne moo nekk dérapage de langage injure aussi il se retrouve en prison est-ce que jàpp ne carrément moom kàddu yu mu yëkkati c'était des mots de trop ou bien c'est juste da nga ranger aussi si injustice bi nga xam ne yaa ngi koy non de toute façon moom def na erreur kii la moom def erreur l'accepte Mm-hmm. mais nag wax dëgg yàlla man dama gisul lu jar ñu koy tëj ndax boo seetee moom indexé wul kenn saaga. Mm-hmm. ki la indexé wul kenn. ni mm-hmm. dof mi indexé wul kenn. mais mais il a insulté. waaw il a insulté certes mais indexé wul kenn. léegi nag insulte moom bu dee insulte moo tax ñuy tëjaat waaye waaye def sama gars yi nekk APR. <laughs> nu ñuy def nu ñuy def sama paa yi nekkoon APR ñu nekk ci palais bi nekk di mën fële assemblée nationale. les députés la nu ñuy def ñu amit Suzanne noonu ak ñeneen ak ñeneen. léegi nag loolu mooy u fait créer benn haine. ci population boo xamante ni en bu benn bombe à retardement lay nekk. boo xam ne bu explosé kenn mënu ko téye kenn du ko mën a amortir. mooy tooñ bi ñuy tooñ xam nga kii dañ ko tooñ parce que ñi ànd ak Macky Sall ngi fi def lu gën a ñoo xam dañuy joxoñ nit saaga ko te moom saagawul joxoñul nit saaga ko. peut-être def na erreur topp na xolam moom sax après il s'est excusé. dafa génn mu ne maa ngi jégalu ngeen baal ma mais ñii saaga am na Suzanne Camara kan lañ jégalu. ay rey leen diw dañu war a rey diw diw dañ ko war a rendi ay di da ngeen jégaluwuñ kenn donc kon justice sénégalaise bu demee ba nekk si benn pouvoir bi jàpp ko di ko manipuler di ko doxal ni mu bëggee mu doxee jàppal diw mu jàpp diw tëjal diw mu tëj diw libéré diw mu libéré diw mais kon en réalité ana république mm-hmm. c'est quoi la démocratie ana liberté d'expression sax si wax yi fi gars yi di wax te yoo xam nekkul wax yu graw loolu nag mu indi tey problème bi mooy laaj doom dóor doom bi mm-hmm. mooy taxaw yow ku ànd ak yow bu waxee ñu yëngatoo rek aje ci kaso bi ni dof moom kon dafa ànd ak Sonko rek ay ci Cheikh Omar moom kon day kii ay c'est-à-dire loolu en réalité réew mi am na ñu fi ñoo xam ne am faruñu fenn te ñoo fi ëpp. ne tekk nopp yor seen i carte électorale. y a des ñu posé la hmm. bi ngi xamante ni mooy peuple mooy mooy ñi nga xam ne faruñu fenn. Mm-hmm. ak ñi àndoon ak ñoom. Mm-hmm. ak société civile mm-hmm. ñi doon xeex Abdoulaye Wade ñu ñëpp àndoon maase dem taxaw di xeex ak moom pour jëlee fi Abdoulaye Wade est-ce que mi ngi xalaat ñoom ñëpp noonu ñoom ñi ngi xalaat ñooñu rek parce que du ñëpp ànd ak moom. Mm-hmm. dañu doon dëgg est-ce que mi ngi xalaat ñooñu. c'est c'est vrai. le cas Mollah Morgun mu mm-hmm. fi nekkoon benn phénomène boo xam ne mun nañu wax ne euh, Euh, ay live am c'était bien suivi ñu gisoon ne carrément aussi daloon attaqué directement euh, si le président de la République mm. Marième Faye ay jigéen yoo xam ne elles n'ont rien à voir avec la politique sénégalaise dem sax euh, wan ay cadres yu muy yëkkati si ñoom dem ba briser seen vie finalement l'affaire retournée si ousman Sonko mu mel ni comme aussi les patriotes comme ni leen ñu wooyee am benn gis-gis bu ñu am finalement si mola Morgun le cas Mollah Morgun booloon ko analyser euh, euh, loo ci wax euh, Karim. Ndiaye xam nga ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy xeex. Mhm. mais xëy na ni ñu koy xeex moom bokkul quoi. Mhm. tu vois boo seetee Assane Diouf. Mhm. on va voir l'histoire nga xool demal nga xool bi ma génnee bi Assane Diouf di di saaga bi ma génnee. waaw maa bu baax baax bi di ko ñaan yàlla defal bi mu bi mu ñëwee di saaga man ma def benn sortie ko ne Assane Diouf nga bàyyi saaga yi. fekk muy saaga Youssou Ndour mm-hmm. wax yu ñaaw ci Youssou Ndour man Assane Diouf na bàyyi saaga c'est vrai li muy wax nii weddi li muy wax quoi mm-hmm. keroog lu ne dégg naa ko ci saaga mm-hmm. man mosuma cautionné ay saaga c'est man ku may déglu ngay saaga ma zappe la wala di unju ay mbooti jàmbur léegi voilà pour tout le monde a ah, Karim daa am gal jël na kii dugal ko ci hôtel bi sa fan on ne la bassesse bi ñu yóbbu ñun xoolal xam nga la mooy problème xoolal te loolu parti pouvoir ñoo ñu fa yóbbu <laughs> mais est-ce que aussi c'est pas facile aussi. ñu euh, parti pouvoir ñooñu fa yóbbu. waaw parce que ñëpp ku tout le monde est intelligent. peut-être yow doo seetaan moo la moo gëm man du ma ko seetaan keneen ak keneen. man li may gis nii. Ah. li may gis nii man je ne cautionne ñëpp xam nañ mais tey ma Balla Gaye jàppoon ñuy xeex dinaa ko saaga saaga parce que mënu ma ko dóor moom saf ko. is mhm. xam xale boo ko dóoree xoola benn ma la am mooy saaga yow mënuñ la jàpp xoola. man je cautionne pas des insultes dama lay wax rek ne la mm-hmm. ñoom ñoo ñu yóbbu fii li la ñu fa mm-hmm. mm-hmm. la gendarmerie ils ont la police ils ont ils ont l'argent ils ont tout ñi di saaga ku ci ndaw ku ci jàppoon rek toroxal toroxal boo xam da ngaa marre taal yi ñu toroxal seen i frère ñu toroxal seen i sœur di taal seen kër léegi ñoom yow xale xale njaab boo koy dóor lenn rek la am mm-hmm. ma doon xeexam moom moom dinaa ko saaga saaga saaga ba parce ma ko dóor ma koy ko loolu foofu du ma ko bàyyi foofu du ma ko bàyyi ci mooy def mu metti foofu du loolu mooy mooy que boo saaga ba fekk ku amul doole taw amul benn il est impuissant nga ñëw di ko dóor ba sonal ko ba gaañ ko ba tànc ko mais bu la saaga da ngay accepté quoi mm-hmm. loolu moo tax tey gars yi yegg ci dimension bii nii mm-hmm. mais taxul man dama ne ñu fexe ba demee intelligence parce que bët bi ñuy xoolee ñun tey dañu xoolee ñun la jeunesse sénégalaise dañu xool di xoolee di ko xoolee le peuple sénégalais bët boobu ñun dañ ko war a dindi xam nga koy dindee mooy xam ni y a plein yoo xam ñoom comprendre ñu ko mm-hmm. li ñu présenté rek lañ mën a a xam mm-hmm. donc kon ñun jot na surtout maa ngi koy wax les activistes les lanceurs d'alerte ngeen gën a intelligent si seen forme de lanceur laa lay wax mhm. mooy ñi nga xam ñoo nekk Sénégal mhm. looy wax jot nañu def communication bu am solo ci leeral Sénégalais yi mhm. ah que ñun duñu ay saagakat que même Sonko du saagakat Bassirou Diomaye Faye kenn mosu ko gis mu saaga pour Pastef bi kenn mosu leen dégg ñu saaga xale yi nga xam te ne ndeysaan amuñu xeex amuñu doole ñoom ñooy fayoo ay saaga ci dóor yi leen état di sàcc seen alal sàcc seen pétrole sàcc seen gaz sàcc seen zircon sàcc seen seen thorium uranium da ngay gis ko sàcc àllu réew ba noppi di porté waate plainte di ma menacé waate xam nga léegi cest loolu moo tax ñoom ñu koy fay amuñu luñ ko mënuñu ko fayoo nen lu dul bëgg nañ lu metti ñooñu ñu koy làmb fu ne léegi nag ci saaga lañ ko tërëpee te lu ma gën a métti si saaga yi da ngay xool nit ku toog di def liggéeyam xamoo ko ni danoon ni def ah, ah. moo fu mu sokko ko xamoo ndeyam ak daayam yow nga saaga kooku yow yaakaaroo ne kooku sax voilà akam mun na la jàpp ak wala je sais pas peut-être euh, les gens ne réfléchissent même pas à ce qu'ils en fait daa fii ñëpp la ñuy saaga voilà mais da ngay xeexal dëgg nga wax hmm. da ngay liggéey si jaamu yàlla ko pour sa njaboot tout à fait léegi sa jaamu yàlla nga yaakaar ne yàlla du la ko yombala noonu <laughs> yàlla du yombal kenn jaamu yàlla mais saaba yi bu bi ñuy xeex mais ay flèche dañu noonu jàpp di leen rendi mais ñu dañuy xeexal diine mais yenn touriste ñu mën a dégg mais c'est des choses à bannir dans la société non certes cautionné wuñ ko mhm. jàpp loolu mënuñu ko cautionné mën nañoo am divergence d'idées njàpp mën na la bañ a neex Abdou Karim mën na la bañ a neex mais voilà que ñu respecté suñu ay euh, mais mhm. nañ accepté ni lépp yàlla dañuy ñaan kay gars yi neneen ñu fexe ba bañ daan daanu ci piège animosité bi ñu état bi di woo. c'est vrai jeunesse bi dellusiwaat conscient ñu fexe gën a dañu bàyyi di topp nit. parce que mi ngi wax lu la neex rek. si boobu la neex boobu laa bëgg ñu ñëw finalement. Euh, euh, Mollah su gisee nu mu retourné vestem après euh, si l' affaire Ousmane Sonko ba ñu sax mu publier benn photo boo xam ne dañ ne montage la après moom mu retourné waat di expliquer est ce que genre nit yi nekk na aussi dañuy utiliser la cause xeex Ousmane Sonko bi pour am aussi benn visibilité pour ne pas dire accéder si ne moo nekk euh, mbaxus yu ñuy gis ne peut-être les gens du pouvoir mun na leen ko jox. man yaa xam bi man gis naa ko quoi. Mhm. mu gisee. Euh, dafa ma fait très mal billaay jàpp. franchement c'est billaay photo bi dafa ma méttee xam nga lu tax. en tout cas jàpp jàpp waa ji nii ah. ndeysaan dafa am jabar. wallaay loolu doom surtout ça. man damay des fois damay damay mets à sa place quoi. moom tam sama taaw rek am na 14 ans. jigéen bi quoi c'est très compliqué. comprendre nga. damay xool rek des fois moom ma xool su ma nekk bu ma te pourtant ma ne kii te Sonko bu toogee ak moom keroog dama dem seeti ko quoi. dama gis ni waa ji mais dafa il yàlla dafa ni du teg nattu du teg nit nattu bu mu attanul lu mu teg nit rek attan na ko. mais bu ñu yaakaar ne aussi que luñ koy def atteindre ko. parce que nit nit rek la d' mais ah. attan na ko nag. parce que man Sonko bu ma déglu bërki démb ma dem këram seeti ko. Mhm. ñaar ma dem toog fekk Sonko mu toog ñu seeti ko quoi nit dañ ko Mm-hmm. mais dama koy xool ba caag ma ne non kii kii def lii la kii non kii nitu yàlla la quoi parce que mm-hmm. man am na yoo xam ne man jàpp bu doon man man pexe naa les plombs bu yàgg mm-hmm. tàkk naa bu yàgg wax dëgg yàlla man gisuma man Sénégal li mu jaral Sonko parce que bu doon keneen ma ne la abandonné na ah, nañu waxante dëgg yi a euh, ma PTT PTT Pototo Benno Ñaaroo Tasaaroo Weng Jubantiku cent cinquante mille partis politiques ñaata homme politicien ñoo fi nekk ñaata homme politique ñoo fi nekk mais mu ci benn nit xoolal jihadiste la mm-hmm. wax wax jihad dem montel ko sikkim mm-hmm. de jihadiste à pervers mm-hmm. dégg nga xam nga jihadiste mooy ñooy nga xam ne yàlla rek léegi xam fu ñu mu jëm moom léegi pervers la ji ñi ko jihadiste après ñu ne après ñu ne rebelle après rebelle bi rebelle bi léegi ñu ne violeur la. violeur bi doxul léegi ñu ne ñu ne ñu ne euh, ñu ne kii la euh, pervers la fekk nañ ko fee mu tëdd fii. fekk nañ ko mu fële dugg na fee ak benn xale bu jigéen def nga ne yooyu yëpp léegi ñu ne léegi diffamation la ñu ne léegi diffamation la déggoo ma de. Mhm. question bi nit ñi war a posé mooy naka la état du Sénégal mën justice bi di ko bàyyi di seetaan Macky Sall muy utiliser justice bi di làmb pour di làmbaatu fu ne mel ku nekk ci làmb bëre pour éliminer benn adversaire politique di fu nekk

c'est vrai àq yooyu day ko ne di leen dal ñooñu naka lañ mën a jàngee bay bëgg a dee sonn seen waajur yi sonn ñu war a toog nekk ñu ñu jox leen lu diis cëru yàlla bu diis mooy juge juge benn waay toog fële ci palais bi naan jàppal njaam bàyyil non defal mayel kii liberté ah. dugalal kii génne kii te xalaatoo sa bàmmeel mm-hmm. xalaatoo a diggante sa borom man foofu laay waxee quoi mm-hmm. juge yi am na si ñu ci bari ci magistrat yoo xam ne dañu nekkuñ si loolu de mais ñeneen ñi nañ leen fekk mm-hmm. parce que li ëpp na c'est vrai. ëpp na c'est que foofu laay waxee quoi. <laughs> njàpp man du ma nekk si détail yu ay diw wala lii moo tax mu def comment chey naa illaa bi ma alim na. c'est vrai lu tax mu def ko xaw ma lu tax peut-être wala moo gën di wax wala mu jékki-jékki changé génnee photomontage xaw ma xaw ma lu tax mu def ko mais lenn xam naa ko quoi. Mm-hmm. xeex bi képp ku ci nekk te dëggu ci yow. Mm-hmm. yàlla dina la weer. loolu moom man maa la ko xeex bi dafa am baatin. dina mm-hmm. xeex bi njàpp dafa am baatin. loxo yàlla da cee nekk. Macky Sall par exemple. njàpp Macky Sall su waxul ay noonu fi mu toll dañuy julli di jàpp di ñaan mu déclaré day ay noonam ay noonam dañuy ñaan yàlla pour mu wax ni day def troisième mandat. parce que su def su deful loolu ñun ñëpp ay waye di kon il va sortir par la grande porte d' tous les ak li fi def yëpp. Mhm. mujj bu rafet Macky Sall waru ko am. ah troisième mandat rek moo mën a tax Macky am. moom moo tax Macky Sall du am mujj bul wax loolu. dégg non dama lay sëñ non xool njaam njaam c'est bu may wax gis nga wax feebaree na ko noppi ñuy dégg wér. xam fa waxee dama ne la ah ay noonam moom ñu ngi julli di ñaan pour mu mu ne day def troisième mandat. Mhm. gis nga ñoom ñu ngi def ay cérémonie naan dañuy lancer seen kii troisième mandat loolu bu ñu ko deful day bu ñu ko deful rek ñun dañuy ñun dañuy waye di dinañ dinañ ñëw opposition bi dañuy waye di dinañ ñëw si euh, cérémonie yeeg yooyu noonu. Mm-hmm. surtout par rapport ak euh, acharnement euh, lu mel ni comme acharnement lu ñuy def si kaw Ousmane Sonko y a aussi livre bi nga xam ne Cheikh Yérim génne na ko. Mm-hmm.